lii nga wax nag am na ñu koy naqarlu waaye duma la làq ne maa ngi waxtaan ak Aminata Touré maa ngi waxtaan ak waa PDS. ci waxtaan maa ngi waxtaan ak PDS. <laughs> Euh, di fàttali PDS man booba dugguma ci politik xaw ma politique. waaye daf dama gisoon lu ma jaaxal ci sama papa Ablaye Wade dafa doon am ak nit defar ko jox ko responsabilité politique defar ko ci wàllum politique kooku wax ko jëm ci Abdou Diouf ak euh, Jean Collin na mais Ablaye Wade était capable indiwaat ko jëlaat ko dénkaat ko ndomb tànk mais man dama dama dama dama góor gi moom malaaka la wala naka parce que ndax nag man dama dama. Ah. <laughs> c'était un peu chaud. doo ko mais PDS loolu la war a jàng xam ne politique. Mhm. loolu daf ca bokk. Mhm. politique du du fayantoo de. da ngay am objectif des ca loola di ko dox. Mhm. objectif bii nag troisième mandat bañ a ne li ñu dal ci Macky Sall en 2012 bañ a dikkati soxla na. ñun ñëpp ñu man ko mën a ànd ci yooyu objectif